Ali xamé nga sama maq doom ji ah waaw wow alaaji suluxu bi nga yebon guerre mondiale 39 45 ba non xali. bi 14 18 la ko yebon, xamé woko. Way wax nga dëgg alaaji suluxu fetal bi mo taxone Alman tiki yi def demi tour bi mo taxone Hitler fental la way wa voilà yani ngi soog a ñëw fatal gi mo taxone hitler taxaw ci digu penc mi nan si ce n'était pas sulhu noir comme un charbon brave comme un lion rapide comme un lapin je bombarderai la france pendant 24 heures sur 24 cey sama wañi da nga yagal nek jambar nak bilay khali dama dan yor mak dom gi rek def so demi tour rotation plus accroupissement jakarlok ñom nan len ciw ciu, ciu, ciu. Wala di khobul mati mala pista lagi, wajar sama kedom ki, man foyo mali de, wur de. T'inquiète Khali, c'est même pas amul bal. <laughs> Ho, mais Khali, li amul bal, je te jure que j'ai la Wai, ting malimang rama amul bal, dengan mabaga sarahal. Barki sengga cifal, katalbi amul bal.